jàpp naa ne ku ko teewlu ci jataay bi dañ ci jële bind yu bari yu am solo ci tomb bi ñu doon waxtaanee muy àndandoo dund ci jàmm muy loo xam ne jamono soxna la ko lool nit ñi delloo siwaat xel yi xam ne sunu borom moo ñu indi ci àdduna melal ñu ni ñu mel sant ñu ñu bokk di dund du rek ñun nit ñi sax waaye ñoo mala yeeg yépp ñoo bokk àdduna kon xejoo fi ba mën koo jariñoo li fi nekk ñu jariñoo kon ndigalul yàlla la wa saxara lakum ma fi samawati wa ma fi l-ardi jamian minhu kenn ci doomu adama yi génn ci loolu nag la sëriñ mag bi radiyallahu anhu xamoon ba mu dikkee am ndigalul boromam woote woote bu rëy bi nga xam ne mbokk yi wax nañ ko kilifa yi tudd nañ ko léegi woote jàmmoo ak xajoo ñépp law kon bu ñuy wax taayus asilmi mën nañoo wax ne woote Sëriñ Tuubaa ko jëmmal ndax kuréel yi ni ci réew mi séddale ko ci ay tariqa wala ay xarakaat islamiya mën nañoo wax ne ñëpp ñu ngi ci biir Sëriñ Tuubaa ndax wérdu wu fa yor ni ko jariñoo taalibu Sëriñ Tuubaa mi ngi wérdu wérdu woowaat ba noppi taalibu Sëriñ Tuubaa am na ñoo xam ne it wérduñ wenn ci wérdu yooyu di ay jullit nekk taalibu Sëriñ Tuubaa kon moom moo jëmmal dëgg-dëgg lan mooy taxaw si mi euh, Sëriñ Abdul Ahad Mbàkke mii ñu fàttaliku it radiyallahu anhu doy na rek ci moom ne ni mu li mu taxaw ak taxawaay yi mu taxaw ku dégg li histoire wax ci moom du la jaaxal ndax bi mu ñëwee jamono te sëriñ bi wax ne ku ma am ci moom yaakaar la sëriñ Tuubaa yaakaaram du tas kon yaakaar jooju la ñëw dëggal ko ci wet yëpp ci diine ji ci mbokk gi ci réew mi ci lépp ba tax ni mu jëmmale woon tomb bi ñu doon waxtaane foo ko xool la gis ko fa ci ni mu jiitee woon yoon wi bokk ñépp lépp loolu lu nit gàtt-gàtt ab dégg-dégg xam nga ne li ko doon dikkal kenn xamu nu toll waaye moom moo jabootu Sëriñ Tuubaa gi ak jullit ñoo ko doon seddu kër goo ci xam nekk fa waxtu wu ne xéewal gu dul jeex lu ne ñëw na fa jógee kër Sëñ bari na it ñun xam ci réew mi fii ay këri kilifa yu mag yoo xam ne mën nañoo wax ne lañ fa doon xéewloo daanaka sëriñ Abdou Lahad la bàyyi ko te kenn mës dégg mu waxe ko ci biir yoon wi it mu taxaw ci taxawaay yoo xam ne la sëriñ bi bëggoon doon ko mbébét taxawal na ko ci ci dëkk bi sellal ko waaye defal ko fi yu bari ci yu desoon ci yu mu bëggoon te ñu man cee tudd rek maktabatu Cheikh Khadim bi nga xam ne ramz la ci lu rëy rëy waaye mën cee tudd kër sëriñ Touba gii nga xam ne ñu mujj ñi day jàpp ne lu mësta man lu mësta ñàkk ci yoon wi la woon ndax nim dayo dayo bi mu am ak njëriñ li mu am ba tax sax yeneen i kër di koroy ci liggéey yëpp sëriñ Abdou Lahad Mbacke la bokk radiyallahu anhu di wane gis-gisam bu yaatu bu sori moo tax damay ma faral di wax man ne moom li nga xam ne léeg-léeg dana di xajjale ay nit ndax su ñëpp xam nañ ne doom aadama yemuñ tolloowuñ ay maqaama tolloowuñ ay ngëneel waaye maa la gën deesu ko wax nit dañ koy jëf maa la man deesu ko wax nit dañ koy jëf sëriñ Abdou Lahad nag loolu def ci taxawaayam. ci réew mi ci njaboot gi mbooleem ñi jamonoonteel xam nañ ne moo leen gën moo leen man ndax wane na ko ci jëfam ci taxawaayam ci liggéeyam foofu nag saa bu fi nit ñi doxee di fi jëm rek jàmm rek fi am waaye buñ ko bëggee mottale ay wax nit ñi seeni làmmiñ yaatu na te lu ne mën nañ ko wax su boobaa coow bari waaye dara du leer ma gis ne foofu nag taxawaay boobu mu amoon fexe bay jëf li borom bi waxoon ne wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun moom foo la taxawoon ba taxawal fi Sëriñ lim ko fi taxawal ba tey jii jullit ñi ak murid yi ñëpp ko amee njukkal jullit ñi ak murid yi ñëpp ko amee njukkal ci ni mu wommate woon yoon wi ak ni mu leen fanqalee safaan ak bu taxaw jotee taxawaayu kilifa xam nañ am na jamono réew mi naqari lool te nit ñi tàmm mu jëfandikoo mbokki sëñ Fallou Bousso yi jàpp na ceeb mënut a ñàkk xëy na bàyyilu ko fii ñëpp bokk di lekk laa ko natari ci anam goo xam ne taxawaayu kilifa gu mat la goo xam ne bu réew mi tolloo ci crise taxawaay yu mel noonu dañ koy soxla ci wàll googu sëriñ Abdou Lahad wane na ci loo xam ne ay bind bis bu yàlla sàkk war nañ ko ci mën a joxe ci moom xutba yi nga xam ne bi ñu ko doon def ci xew-xew yi it benn bu ci nekk ci jamono boo ko jëlee jàngat ko dirasa gate war nga def ko ci dañ nga ci génne bind yoo xam ne réew mi ak adduna sax mën naa wax ne mën nañ cee jariñu mën nañ cee dund kon moom ku ñu war di fàttaliku la ku ñu war di ñaanal la ba tey ndax ñu bari ci génération yu mujj yi euh, jàmm ji ñu am ak xéewal gi tasaaroo sëñ Abdoulaye liggéey ci liggéey bu rëy xëy na fekkewuñ wuñ la ko jiitu woon ba mënuñ koo xam waaye ngëneel yu bari bàyyi ko na ci moom taxawaay yu bari it nag ci ay yoo xam ne daan na ko taxawu njaboot gi liñ daan tudde ay zijaat jamaa ya ci jamonoom bari woon na lool dajale mbooloo kenn ku ne mu wutal lu mbokk daf ci la ca war indi ko ganale ko ba ngan nga jàll mu jël kenn ku ne mu jël la yóbbu la ngeen dem loolu liggéey bu rëy rëy bu yaatu la boo xam ne jamono dana koy soxla saa su ne réew mi soxla ko jamono bi soxla taxawu ay nit it bañ xëy taxaw doon ay kilifa yu mag yoo xam ne la jiitu ci seen biir moo ko ci def loolu nag mooy tax dund jàmm jàmm li nga am nga bokk ak nit ñi la nit ñi nga bàyyi leen li nga leen manee gën a leen ko it nga di ko jëf te bañ koo wax sëñ la naa foofu la nekkoon kon yàlla na ko yàlla fayal te dolli ko leer taxawu njabootam waaye taxawu jullit ñëpp ñu ngi siyaare baax nag suñu waajur soxna May mi nga xam ne moom itam taxawaay yooyu lu taxaw ba tax bis bu mu wootee ñëpp danañ ñëw ndax moo ko ji ci nit ñi Euh, loolu way juróom nekkoon ni mu ne ci baax a baax di jàngale di yare xam ne moom xam ne moom baax ak yiw la doon ba tax mu sampi daara di ca yar nit ñi di jàngal bañ mën a jariñ fii ci àdduna doon ñu jumat loolu am solo la ñu ngi koy ñaanal yàlla sàmm ko dëgëral ko sàmm jullit ñëpp maa ngi jéggul baax na di baal àq damaa ñëwoon rek teew si ngir jariñu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ay yoo xam ne sëñ Touba rek la ñu yaakaar tey moom la ñu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak yaakaar sëñ Touba rek la ko def